زيادة الثقات وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم ثالثها تقبال لا ممن خزل وقيل إن في كل مجلس الحمل بعضا أو النسيان يدعي تقبل وإلا يتوقف فيه وقيل إن أكثر حذفها ترد وقيل فيما إن روى كلا عدد إن كان من يحذي مثلها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وبن الصلاح قال وهو المعتمد إن قال فاسمى للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو قال فالإطلاق فاقبل في الأصح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 قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه زيادة الثقات آه، زيادة الثقات آه، kon موي bunt بيغا nga ان شاء الله allah moom la ñu موي a gis حديث bu fekkente ne ci loo xamante ne dañ ko ci maanaam dafa am ku ko wala ñu ko ci dolli ci biir baatu xadis bi maanaam euh, gisoon nañ almazid fi muttasilil asanid euh, moom dañ ko boole woon ak almursal ndax opposé gi nga xamante ne moom lañ opposé wu woon maanaam euh, jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo woon ak almursalul xafi yi moo tax nga gis buntu boobu mu tëdd ko woon almursalul almursalul xafi yi wal mazidu fi muttasilil asanid amma bunt bi moom ci baati la maanaam moom mënoon na bokk ak maanaam ziyaadatu siqaat mënoon na ànd ak al muttasilul asanid waaye euh, incha allah dinañu ñëw ci teqantal gi nga xam ne moom moo aju ci wàllu euh, def gi nga xamante ne moom la al imam as-Suyuti rahimahullahu taala indi fii Ah, ndax ñoom ñaar bokk nañ dara ah, waaye yooyu dinañ ci ñëw incha allah waaye ziyaadatu siqaat mooy siqaat pluriel la ci siqa incha allah loolu dinañ ci ñëw ziyaadatu siqaat mooy ndollent yi nga xamante ne ñu wóor dañoo ñëw dolli ko ci yaxu xadis bi maanaam ci matnu bi du sanat kon mbir mi étude bi fii ci lan aju ci mat matnu bi la donte sanat ak mat matnu duñ leen di mën di tàqale saa su ne mais dinañ dañuy ndax dañuy jàppalante moo tax même yi nga xamante ne sax complètement affaireu sanad affaireu mat na la comme maqtu comme marfu mawquf maqtu yooyu yëpp ànd ak loolu boo ko seetloo bu baax di nga gis ne sanad bi mënuñu ko bañ a bàyyi xel parce que le fait que ñu askanale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wane ni kon jokk askane nañ ko mooy dem na ba ci moom maam te loolu ci boppam mooy sanad moo xam nag léegi inqita am na wala inqita amul loolu après beneen affaire la euh, léegi Euh, lii ziyaadatu siqaat mu ne wa fi ziyaadati siqaati alxulfu jam min man na naaqisan aw man atam wa nekk wa fii te nekk na ci ziyaadaatu siqaati ndollentuk ñi añu wóor ñi ziyaadaati ndollentuk as siqaati ñi nga xam ne dañoo wóor mooy adlun daabit comme niñ ko xam ne dafa mën a mokkal ba pare mën a takk Al khulfu wute jam gu bat wute gu bare bare ndax jam la woron man du mim di mim mais way wi motax tax jam wute gu bare bare bare bare bare mu jam ah, lu upp fuk ak nangam man fuk ak ñent à peu près ci ay wax mim man di tukke ci ñi nga xamantene rawaahu na maanaam di tukkee ci koo xamante ne rawaahu soloo na ko naaqisan di aji wàññi aw wala boog man ka nga xam ne atam dafa matal maanaam moom tamit atam dafa waroon a shidda way moo tax maanaam euh, wuute gi borom xam yu ci ziyaadatu siqaat ndollent yi nga xamante ne moom la ñu wóor ñi di def day aju ci lan ci mooy su fekkee mooy ki nga xamante ne dafa soloo xadis bi mu wàññi ci ay baat yoo xamante ne ñeneen dañ koo matal maanaam walla keneen wala boog mu yokk ci ay baat yoo xamante ne ñi ci des indiwuñ ko léegi loolu nan la ñuy gisee xadis boobu maanaam lan la ñuy jël dans tout ça comment comment on va faire dans tout ça voilà mu ne saalisu xaa ñetteelu wax ji mooy de tuqbal subhaanallah tey dafa jëfandikoo comme ni fuqaha yi di def waxale fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di def surtout fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ils sont la là-dessus dañuy wax euh, masala bii de wuute am na ci daal di wax ñetteelu wax ji wala boog ñu ne ñeenteelu wax gi mooy nangam moom moment où yow xam nañ ne masala bi juróomi wax am nañ ci ñeenteelu wax bi nangam la juróomeel bi nangam la parce que ñett yu njëkk yi xam nga ko ah masala bi soit mu nekk lu làpp wala lu lu sobewu ñu ne la ñetti wax ñoo ci am ñu ne la juróomi wax a ci am yow xam nga ñett wax yu njëkk yi du dëgg ñetti wax yu njëkk yi lan la bu njëkk mooy laab na bi ci des mooy laabul bi ci des mooy teqantal daf cee am jeex léegi ci biir teqantal googu sa dépend daal ci masala bi daal maanaam day am parfois bu fekkee ne teqantal bi neex naa gis dañ dañuy dem directement ci ñett ñeenteelu wax ji bu fekkee teqantal gi neexuta gis ñu dem ñu ñu tàmbale ci ñetteelu wax ji et cetera fii tamit noonu la jëfandikoo ibaara yooyu la expression yooyu la jëfandikoo maanaam mu ne saalisu xaa kon ñetteel bi tuqbalu mooy ne def koy nangu kon ñaari wax yu njëkk yi lan la ñaari wax ji dañ koy dañ koy nangu wax ju njëkk ji mooy dañ koy nangu ci lu ñu joyal wax ju ñaareelu wax ju maanaam bu fekkente ne dafa am lu ñu dolli ci yaxu xadis bi dañ koy nangu ci lu ñu joyal loolay wax ju njëkk ji ñaareelu wax ji mooy dañ koy delloo ci lu ñu joyal mooy kenn du ko nangu lu mu doon quelle que soit la ak cas bi nu mu présenté woo bu fekkente ne dafa am ñu solo xadis bi ñu dolli mu nii am keneen wala ñeneen ñu ñëw dolli ci xadis bi nangam duñ ko nangu loolu mooy ñaareel wax bi wax ju njëkk ji mooy lu mënti xew quelle que soit la situation bu fekkente ne siqa la moo ñëw dolli wax ci yaxu xadis bi matal loo xamante ne ñeneen ñi indiwuñ ko lu mënti xew dañ koy nangu loolu mooy wax ju njëkk ji ñaareel wax bi mooy bi ma la wax mooy ne duñ ko nangu ci lu ñu joyal ñetteelu wax ji mooy toqbalu de saali suhaa mooy ñetteelu wax ji mooy toqbalu def na ko nangu waaye nag maanaam ku ku ñëw dolli ko waaye laa kenn du ko nangu mi man ci ki nga xamante ne xasal dafa wàññi daf ko dafa dagg wax ji maanaam mooy xadis bi deef na ko nangu ci koo xamante ne moom naka jekk da koy soloo di ko matal waaye koo xamante ne tey da koy soloo matal ko tey suba mu soloo ko mu am lu ci wàññeeku kook kenn du ko nangoo ci moom loolu mooy ñett ñetteelu wax ji yi la waxeef na muy ñeenteel wax ji in bu fekkente ne fii kulli majlisin ci bépp jotaay xamal la yanu la la solo xadis bi la ko yanu la solo xadis kon mu solo xadis bi baadan ci maanaam ab aw xaaj ci xadis bi baadan ab xaaj maanaam demal in bu fekkente ne xamala dafay yanu dafa solo baadan lenn ci xadis bi fi kulli majlisin ci bepp ci jotay bu ne manam moy hadith bi daf ko solo am parti bu mu ci solo bu ko serign bi netale hadith bi ci ben jotay matal ko benen part benen jotay mu solo ko ñak ko matal mom mu solo we ko non da ni deg na ci serign bi nangam daldi wax bi nga xamantene matal la daldi wax leg leg mu netali nim ko degge won ci serign bi mu matal leg leg mu netali nim ko degge won serign bi serign bi bañono matal hadith bi aw wala bokk an nisyaana ak fàtte ñaar yadda'ihi boo xam ne daf ko wootee maanaam ñaari yëpp yoo xam ne dafa wootee ni man dama dama dama déggoon maanaam kon lii mooy lan lii mooy su fekkente ne eh, eh, eh, wala ñu ñu ñu yeggale aw wala boog an nisyaana fàtte yadda'ihi gu mu wootee boobaa bal deef na ko nangu wa illaa bu dul lool rek yu tawaqqaf deef na taxaw deef na téye suñu bopp fii ci hadith bobu ci bañ ci nangu ji manam dañuy tey dañuy teyewu ci baña a nangu xadis bi dañuy taxaw ci baña a nangu xadis bi dañuy taxaw japp suñu jambour waaw kay ci baña a nangu xadis bi moy lan moy ben ci ñaari condition yi su amé dañ ko nang kon lool mom moy ñentel wax ci manam ben ci ñaari condition yi lañuy ñuy hadith bobu moy bu ñëk bi moy wajis wax hadith bi di ko matal leg leg mu wax ko mu mat leg leg mu wax ko te du mat mu am mu muy explique daan ne euh, boo leen gisee ma soloo xadis bi matal ko léeg-léeg ma soloo ko bañ koo matal dafa fekk ne sama sëriñ yi ba ma leen ko ba ma ko déggee ci moom dama ko dégg mu matal bee ma dégg ko ci moom matalul maanaam ci ñaari jotaay yu wuute laa ko soloo laa ko déggee loolu moom moo tax wala boog mu ne dama fàtte woon ne maanaam dama ko euh, euh, xadis bi ci benn jotaay gaa laa ko déggee waaye damaa fàtte Eh, eh, eh, dama fatte wona yeggale manam li deson ci hadith bi ci bima len ko jike netali dama fatte li deson ci hadith bi ci bima ko jike netali ci kaw lol dañ koy nangu sino rek ken du ko nangu sino duñ ko nangu lolo ñentel wax bi waqila waxef na manam juromel wax bi in su fekente ne aksara dafa baril hazfaha lamu lamu fat manam lamu hazaf lamu dindi turad lol dañ koy delo manam su fekkente ne limu dindi dafa dafa bari bu boba dañ koy delo sino su fekkente ne limu dindi ci baat yi bari wul duñ ko delo waye bu de day ñew dindi ci lu bare bare koku dañ koy delo waqila waxef na muy juroom bennel wax bi fima def nako nangu ci li nga xamne in rawa su fekkente ne solo na ko kullan bépp bu nekk adadum adad ab lim maanaam su fekkente ne mbooloo mu bari dañoo solo xadis bi inkaana su fekkente ne nag man ki nga xamante ne wala wala ña nga xamante ne ci nombre boobu yaxdifuha dañoo far dañoo dindi ah maanaam li nga xamante ne moom mooy ndollent ga laa yaxfulu du sàggane an misliha wëllif kemam fii aadatin ci aada bu boobaa laa tuqbalu fu ko nangu euh, wax ji mooy lan wax ji mooy su fekkente ne mbooloo mu bari def koo solo dinañ ko nangu su fekkente ne mbooloo mu bari soloo nañ ko wala ak lim mbooloo rek muy ñu tàmbalee ko ci ñaar mbooloo ci ñaar la tàmbalee ñaar ñooñu suñ solowee xadis bi dëgg nga bu baax suñ solowee ndollent googu dinañ ko nangu waaye su fekkente ne dañu opposé wu ne xool ni nga xamante ne ñoom ñoo dindiwul ñoom ñoo xasaf mbir mi maanaam ñoom ñoo ko ñàkk solo soloo maanaam ndollent googu ñoom indi ñi ko indiwul bu ñu baree bu ñu baree ba nga xamante ne dañ naan ñii ñëpp ñoo bok manam dal ci aada en général soit dañoo bari li ñuy mokal dañoo nekk ay ay ay ay xufaz nekk ñoo xam ay imam lañ nekk wala wala bok ñu nekk rek nombre bu bari ba nga xamantene dal da dul xel dul yanu ñom ci aada dal en général ñi ñepp duñu mëna faté ndo bir mi en même temps manam duñu mëna faté na ndo lent gi bu boba ké du ko nangu ni <laughs> nga wax jooju hmm? kon euh, bi moy ñaata Euh, wax bi ñaareel bi ñett euh, ñeenteelu wax juróomeel juróom benneel bi la kon moo nekkoon juróom benneelu wax bi waqiila juróom ñaareel wax bi mooy laa deefu ko nangu is su fekkente ne laatu fiidu du nja jariñ xokmaan ak àtte maanaam bu dul jariñ xok xokmu sharia àtte sharia kenn du ko nangu maanaam kon pour condition yi ñuy nangoo ndollent googu mooy ne ndollent googu wala baat boobu précisément nga xam ne moom la ci kooku solo xadis bi siqa boobu dolli day nekk loo xamante ne euh, atte sharia daf cee aju mais su ci atte sharia ajuwul kenn du ko nangu dégg wax ji hmm? waxeef na mooy juróom ñetteelu wax wax ji kon mooy huitième wax ji xus jàppal maanaam dañuy jël jëlal ndollent googu maa feek lamtu xayir soppiwul nazman ak nose maanaam bu fekkente ne gra grammaticalement ni euh, wax ji demee mbir mi duñ ko soppi parce que en fait soppi wax ji grammaticalement day wane ni quand même dafa am lu muy wane tam quand même moy day wane ni mbir mi euh, euh, ñii mënoon nañoo bañ a fàtte vraiment ndolent gi wala mom ci bopam mom boudé mom moko solo léeg-léeg mu wat ko day fat mën na baña faté vraiment ndolent googu bu boba dañ koy nangu su fekkenté ni changé wul grammaticalement mbir mi changé wul waaye su dee day changer maanaam ni mu nose woon noonu day changer wala ordre bi ni wax ji tëroo façon wax ji ni waxin wi ci boppam mooy soppeeku dañuy day soppi catégoriquement waxin wi waxin wi da koy soppi yaa ngi dégg bu boobaa duñ ko nangu su fekkete ne waxin wi dañ koy jël dañ koy soppi maanaam waxin wi day soppeeku boobaa duñ ko jël waaye bu waxin wi soppeekuwul def na ko nangu loolu moom mooy kon Hmm? kon mooy huitième bi yaakaar na ah, léegi wabnu salah al imam abu amr ibnu salah rahimahullah est-ce que bi hmm? subhaanallah gis nga bi ñu tàmbalee ba léegi yu bare bari da ngay gis ibnu salah rahimahullah di ñëw di teg ay waax di ko dëgëral di segg rahimahullah est-ce que bi imam ci liggéey bu rëy bi mu defal li nga xamantene mom moy xam-xam xaalis yu yalla nako yalla fay gën ci fay rahmatullah alayhi rahmatan wasia qala ibn al imam ibn salah neena rahmatullah wa huwa te wax ji al mu'tamad moy li ñu sukkandiko borom xam-xam yi li lañ degeural li lañ mujj japp diko degeural moy lan moy in khalafat su fekkente limu solo dafa wutek ma lo xamé li nga xamantene li siqati ñeel na ñu dëgër ñi fahiya loolu radd dañ koy delloo maanaam raddun maanaam daal shidda la maanaam maanaam fahiya dañ koy delloo maanaam mooy dafa def teqantal catégorie eh, eh, classé ziyaadaat yépp daf ko classé ci ñetti classe kese ñett rek ne munul ñàkk munul génn ñett yooyu léegi dañuy seet su fekkente ne moom li mu soloo xadis boobu dafa wuteeg li nga xamante ne moom la ñi ci des solo maanaam moom dafa indi wax joo xamante ne boo ko nang boo ko xoolee dafay deet day day day day contradictoire ak li yeneen siqaat yi indi te ñeneen ñu gën a bëri siqaat yooyu bu boobaa dañuy delloo wax ji parce que loolu boobaa day mel day day day mel comme xadis chaz comme ni ñu ko gisee woon ci xadis chaz aw wala boog laa wuutewul ak ñoom wuutewul ak ñoom fa xuus kon jël ko maanaam bu fekkente ne ndollent gii mu indi amul benn contradiction ni de près ni de loin ak ñee amuñu contradiction dañuy day day dolli rek waaye amul benn contradiction ak li siqaati indi fa xuus kooku jël ko tilka tilka boobule boobule ndollent jël ko bi ijmain ci ijmaa dëppoog boroom xam-xam yi ci boobu masala wadax bu leer naññ parce loolu moom ak ñu wéetoon mu wéetoon ci solo xadis ñoo yam parce que nit su wéetee ci solo benn xadis même bu fekkee ne mooy fard la yaa ngi dégg waaye xadis bi wér na dañ koy la nangu fard xam nga dañ koy nangu xarib xadis bu fard wala xarib bu fekkente ne euh, euh, euh, càllale gi dëgër na dañ koy nangu loolu maanaam bu boobaa fii loolu moom mooy beneen façon beneen type bi mu des troisième type bi nag mooy aw wala boog xaalafa mu wuuteeg al itlaaq lañu joyal maanaam bu wuuteeg maanaam contradictoireul gaa ak li ñuy indi waaye dafa wuuteeg mbir mi maanaam itlaaq mooy lu ñu joyal maanaam bu boobaa da ngay obligé tënk mbir mi ci dara maanaam loo xam ne dafa dafa dafa euh, dafa généraloon nga bëgg ko wutal ay exception yaa ngi dégg nga bukk ko particulariser mun lu nekk règle nga bëgg nga nga nga ziyaadaat bi ndollent googu bu ñëwee rek day ne day tax mbir mi nekk exception wuutewul contradictoire mais problème bi mooy day nekk loo xam ne après eh, dañuy préciser maanaam que ni dañ koy préciser ci nangam kese maanam ça veut dire que cela veut dire que ni boo bàyyi woon bu rël woon ndollent gi atte bi day yaatu général day nekk loo xam ne voilà mais ndollent gi moo tax dañ naan ah ndekete kat mbir mi kenn du ko joyal noonu rek kenn du ko wax globalement voilà maanaam lu global duñ ko bàyyi noonu mu global mais dañ koy dafa précis maanaam mbir mi dafa ñëw préciser benn globalité voilà exactement c'est ça mooy itlaq ak muqayyad lu global ak lu précis manam dafa préciser ben globalité manam dafa teunk lo xamne dañ ko joyolon ñoo ngi dégg wax di comme lo xamne day wax ab jur ki ñew indi wax xar par exemple kon boba dañ ne ah xar mo taxone ñu wax ndekete du jur yépp manam bëy bokku ci yin nak bokku ci et cetera gis nga comme lo xamne tane non lay démé lool bu boba mune lool nak faqbal ko wax ji du waxu imam ibnu Salah ndax al imam ibnu Salah rahimahullah moom loolu moom bu boobaa loolu nag moom sa problématique kooku nag moom c'est problématique maanaam moom doog doguwul ci dara fii nii yaa ngi dégg mais al imam as-Suyuti rahimahullah moo ci doole lii ci waxu li im maanaam mais waxu imam an-Nawawi la rahimahullah mooy bal bu boobaa nangu ko fil asax ci li gën a wér maanaam kon boobaa ci li gën a wér dañuy nangu lan ndollent googu noonu loolu dinañ ci ñëw incha allah ci exemple bu ko defee mbir mi gën a leer ñu xam ne ziyaadatu siqaat bu maanaam ci ndax lii moom mooy li gën a dëgër après nag dinañ indi tamit yeneen wax yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ci masala bi euh, waaye ala kulli xaal lii al imam ibnu salah wax rahimahullah moom mooy lii gën a mooy li gën a dëgër rahimahullahu rahmatan waasi'a euh, kon lii incha allahu taala moom lañ fas yéene eh, jàng ci suñu jotaay bi ak eh, jotaay bi nga xamante ne moom moo ci tegu incha allah eh, ziyaadatu siqa ziyaada mooy ak ndollent maanaam ak ndollent luy yokk moom mooy wuuteeg luy wàññeeku siqa siqa maanaam mooy ku dëgër lu wóor waaw loo xamante ne dafa dëgër dafa wóor euh, ziaratu siqa nag mooy ndollent bu bon siqa wax nañ la ko su fekkente ne dañ koo wax ci xadis ne kii siqa la il faut mu nekk nit koo xamante ne day nekk adlun daabitun adlun taamu dabt loolu mooy siqa day maandu waxoon nañu maandu mooy lan day nek tamit ko xam dabitu manam moy tamu dab ak takam day mat fokk mu boole ñaar yoy pour ñu mëna a siqa la su fekente na dafa dolli kon ci hadith ben yah manam ci bir yah ci bir yah hadisi lolou mom lañuy wax manam mom moy suñu masala bi manam kon suñu buntu bi li nga xamantene mom la nek di traité moy bu fekkente ne dafa am xadis bi ñu bari solo ko walla kenn rek solo ko moo xam benn nit la moo xam ñu bari la léegi su fekkente ne kenn nit la moom mu ñëw di nettali xadis bi ci benn wàll beneen yoon mu ñëw am lu mu dolli ci xadis bi loo xam ne waxu ko woon ba mu ko njëkkee nettali wala vice versa loolu dañ naan ah xadis bi kat ziyaadatu siqa am na ci baax na léegi su fekkente ne mbooloo lañ mu am mbooloo moo xamante ne dañuy dolli xadis dañuy dolli ah, ci xadis bi loo xamante ne partie boo xamante ne information boo xamante ne ñi ca des dolli ko ci woon bu boobaa loolu tamit dañ koy day dugg ci masala ziyaaratu siqaat bi kon loolu moom mooy masala bi ah, bokk na ci ëpp solo moom mooy fanweereel ak benn ci xam-xamu xadis yi nga xamante ne képp koo xamante ne da nga bëgg a nekk borom xam-xamu xadis mënuloo ñàkk xam yi xam-xam mokkal leen xam leen tàkk leen jàpp leen dégg nga euh, boo ko xoolee moom ak mutta ak ak euh, euh, almazidu fi muttasil asanid ñoom ñaar dañoo jegewantoo ndax almazidu fi muttasil asanid moom dañuy dolli ci càllale gi la am ku dolli koo xamante ne ndekete bokku ci waaye waa ji ci boppam moo jaawale dugal ko ci amma fii maanaam mooy baat la boo xam ne nit ki def ko ci dolli moo xam daf ko ci dolli par erreur moo xam baat la wala expression daf ko ci dolli par erreur wala mu dolli ko ci parce que tout simplement effectivement loolu dafa bokkoon ci xalis bi nan la ñuy xàmmewee lan la ñuy nangu ci biir loolu yëpp ak lan lañ ci dul nangu lii mooy masala bi nga xamante ne moom la war a traité euh, mu nekk buntu boo xamante ne boo xoolee ba tey euh, nga comparé ko ak buntu bi nga xamante ne moom lañ jiitu woon mooy al i'tibar wal mutabaat wal wal shawahid di nga gis ne yooyu yëpp comme dañuy wax rek comme li ñu waxoon ci bii mooy bunt bi mujj ci bii traité affaire shuzuz ak yi wér ci moom maanaam beru lan la ñuy nangu ci ndollent lan lañ ci dul nangu lu weerul nan la ñuy xamee ni lii am na ak ber ak beru wala déet beru gi bu fekkente ne dafa wuutee ak mm, euh, li nga xam ne mooy ñu dëgër li ñu wax te ki ko indi feebal kooku waxoon nañ ko ci gisoon nañ ko ci munkar ak ci munkar ak Ah, bu fekkente ne beru gi ku dëgër gaa moo ko indi mais mu wuute ku gën a dëgër ñu wala ñu ko gën a dëgër kooku moom gisoon nañ ci Shaad ak Mahfouz bu dee ki ko indi de toute façon moom dafa moom du wax katu dëgg même bu wuutewul ak kenn matruk la de toute façon ah, kàccoor la wala yu mel noonu ak wax ji bu beroo maanaam loo xamante ne kenn rek moo ko indi mu beru malgré tout mais kenn rek ko indi mu siqa woo wuutewul ak keneen loolu mooy fardu moom la ñuy wax xarib tamit ci biir teqantal gi nga xamante ne am na ci ci biir waxu borom xam-xam yi rahmatullah su fekkente ne dafa am keneen ku ñëw jàppale ko mu nekk Aziz su fekkente ne ñett lañ mu nekk mashhur et cetera mu yéeg ba mu yegg mustafid mu nekk mustafid bu demee ba yegg benn degré bi ci génération ci niveau bu nekk mbooloo mu baree baree bari solo ko nga xam ne c'est sûr que ñi mënuñoo dëppoo ci wax lu dul dëgg mënuñoo dëppoo ci juumandoo et cetera munuñoo yooyu yëpp munuñoo ànd juumandoo munuñoo dëppoo ci wax lu dul dëgg ñu tuddee ko mu mutawaatir léegi nag ñu war a xool ak tamit itibaar xool seetantal bu fekkee ne dafa am ko solo benn xadis ñu war a gëstu dugg ci téere yi ci masanid yi ci jawaami ay ci jawaami ay ci masanid yi ci musannafaat yi ci sunan yi ci ajza yi ci maajim yi ci mashixaat yi et cetera ñu xool bu baax a baax a baax ba xam am na ñeneen ñu solo xadis bi waaw wala déet au moins pour ñu xool ba xam maanaam mutaabaa am ci ak eh, eh, eh, ak shawahid yi mutaabaat ak shawahid yi am ci ñu seet bu boobaa ñu mën a xool ba xam dañ koy yëkkati ci garib aziz ci ci dañuy jàpp ne xadis bi az garib la wala ba tey wala déet wala aziz na léegi yéeg na dek dem ci aziz wala mashhur na et cetera ñu xoolaat xadis ba xam mutawaatir na wala mustafid na wala mutawaatir na ah. yooyu yëpp dafay traité ci shuzuz walam yu shazza aw yu al yooyu yëpp maam sax ça tourne autour de sax ci shuzuz googu walam yakun shazan wala muallala yaa ngi dégg walam yakun shazan wala muallala te nekkul shaz te nekkul loo xam ne dafa am ella bon léegi nag ella bi incha allah moom la moom la ñuy gis incha allah ci jotaay yii di ñëw mais fii d'abord mu nekk loo xam te ne yooyu dafa man maan nekk loo xam te ne dañ koy settantal xoolaat ko yaa ngi dégg euh, ci ziyaadatu siqaat nag ginnaaw bi nga xam te ne gis nañu mbir moom parce que booy def i'tibaar ci biir mutaabaat bi ak shawaahid yi mën nga ci gis lent goo xam te ne ci biir itibaar bi nga doon def moom la ñeneen ñi maanaam moom nga ci seetlu nan la ñuy xàmmee ni ziyaada dafa am ziyaadatu siqa nan laay ko xàmmee ni ziyaada am na parce que problème bi mooy du du ziyaada bu bu kudul siqa def xayru siqa moom ñooñu am xayru siqaat maanaam ñi nga xamante ne ñoom yëg ñu dëgg ñoom du ñu siqaat seeni ndollent moom kooku problématique gul kooku problématique gul parce que dañ koy delloo problème bi dëgg dëgg dëgg mi ngi résider ci bu fekkente ne ki ko indi lan la siqa kooku foofu la problème am parce que siqa dañuy jàpp ne dafa mën a takk dafa mën a mokkal du duy di fàtte wala daanaka du ko def lu bari ah ba pare dafa wóor maandute la am lu ko wóorul ne lii dégg na ko du ko du ko du koy faral di du ko nettali bu déggee sax loo xamante ne wu dese na ko wóor tuuti danaan ah yaakaar naa ni lii laa dégg lii moo noot sama njot nangam maanaam moom du nettali lu mu déggul wala lu ko wóorul kooku nag ku mel noonu Eh, ay waxam kooku moo problématique mais ñeneen ñi seen wax problématique gul ñoom seen ndolleent problématique gul kon kii rek la mu ndollentam di jaaxalaate ak di di di di di tax ñu war a gëstu mbir mi euh, moo tax bokk na nag ci point yi nga xamante ne ñooy yi gën a màgg yi gën a sew ci buntu yi nga xamante ne maanaam ki bëgg am xam-xam xadis war na ko jàpp war na ko mokkal war na ko mën a takk ndax day tax euh, mbir yi dañuy gaaralante maanaam information yi nga am dangay gaaralante surtout boo fekkente ne da ngaa bëgg a nekk faqih war a xam fiq nga bëgg dugg ci fiq dëgg moo tax fuqahaa yi ak usuliyuuna yi rahmatullah alayhim dañoo fonk bunt bi ci ci xaj ci ci ci ci xadis ndax bunt bi ak euh, bunt yi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu ci affaire Chaz Mahfouz Munkar et cetera Matruk Afrad yooyu maanaam Chaz yooyu noonu ba ba ci ziyaadati xëy maanaam borom xam-xamu euh, usul yi dañ koy dañ ko dañ ko dañ ko yittewoo dañ ko yittewoo trop parce que loolu dafa am solo ci ñoom borom xam-xamu usul yi rahmatullah alayhim euh, moo tax yii bokk na ci nga xam ne ne boo usul fiqh da koo jëlee ci xadis da koy dem segge ko ci xadis ñëw indi ko teg parce que dafa am solo ci moom léegi euh, borom xam usul borom xam fiq ak borom xam xadis yi rahmatullah alayhim dañoo fonk buntu bi ndax dafa bokk ci li nga xamante ne effectivement daa war day mën a tax nga mën a xam lan ngay jàpp ak loolul jàpp parce que euh, taxrij mooy dem Euh, day tax nga mën a exploité taxrij boo defee taxrij ba pare day tax lii moo bunt bii boo ko maîtriser day tax nga mën a exploité taxrij bi maanaam mooy lan mooy nga dem xool xadis benn xadis nga yor ko war ko étudier man de xadis bi laa war a étudier tey nga ne waaw gis nga comme niñ koy def ci Bulughul Maram exactement ma ne damay dem ci téere xadis yi xool lan la ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi ñan ñoo ko solo ak ñan ñoo ko solowul yiñ ko solowee yan moo ci dëgër yan moo ci dëgërul ma indi ko teg ci yoon yu baree baree bare yuñ ko solowee ma indi yëpp teg sama kanam loolu mooy def naa taxrij bi léegi nag pour ma mën ko exploiter dëgg il faut bunt bi bokk na ci bunt yi gën a garaaw yi ma war a man bu dul mooy bi bi ma war a gën a maîtriser sax bii nii parce que su ma ko maîtriser rek day tax ba ma mën a exploiter sama outil information yi ma yor hadith yi nga xamanteni mom la yor ginnaw bama defé defee coono yi fexe ba dajale len légui information nan la koy exploiter voilà légui loolu mom moy buntu bi euh motax kep ko xamante ci imam yi dang ko man buntu bi xam ko tak ko da ngay daal nek ko koo da ngay te d'ailleurs da ngay daal di maîtriser boroom xam-xam yi lu bari ci seen wuuti yi nan ngay fexe ba nootal benn wax ci kaw beneen lu ci baree bari da nga koy mën boo boo boo boo maîtriser bunt bi waaw en tout cas dina am ci yenn point yoo xamante ne fii yi ngay jaare pour mën a nootal wax ci kaw wax xamne ne ah ndekete kat Imam biñu waxe wax ji nangam nangam ki lay bi la indi ki lay be la indi mais buñu setlo ziyada bi nga xamne moy mooy ziyaada xat bi ci anam giñ koy nango condition bi def nako ko ci nango kon ci kaw lolu wax ji moy li nga xamne mom moy li gëna deugër te moy li ko ci masala bi ah non la bu da nga man ko parce que sino do nek faqih ah way faqih mom boko ko don fo nga man lolu waxuma nak faqih comme ñun wolof yi ñu koy faral di waxe bu ñe di borom xam fiq la ñun liñ ci djublu moy manam ab cassette la moy mom ab cassette la ab cassette la moy lan manam moy? Ah, xam nga cassette boko tege li nek ci cassette bi rek lay répéter bis bu ah du leen bu cassette bi daggee dootul waxati bu bu bu bu cassette bi wax ji wax ji nekkon ci cassette bu djume cassette bi du xamne ne djume mom day répété waat rek sama wax ji tay ma ngi dégg su fekkente ne amna na lenn loo xamante ne erreur amna ci de toute façon yow manam li du deñ ndax erreur ba ngi ci du dëgg erreur bi parce que affaire bi day répété rek mom amul xel mo xamante day ségg gis né erreur bi Moustapha kat li mu wax amna erreur na ko rectifier eh enregistreur bi amu ko dictaphone bi amul lolu munu ko def lim man rek mooy lii nga xamante ne moom lay wax mu daal di koy jëlee ni mu ko mu répété waat ko nii loolu nag ak faqih duñu benn kooku moom dafa ma dafa mokkal rek kooku moom loolu la la rek maanaam ku mokkal la ku mën ku jàpp la ku takk takk la jeex na xattaa ci xam-xam xadis loolu am na ñu mel noonu ñoo xam ne musnid la ñoo la kooku la ñuy wax musnid koo xamante ne moom xadis yi daf koy mokkal càllale yi lépp dégg na ko ci sëriñ yi mën koo tari wala bok mu mën ko répété wat exactement wala mu mën ko lirat ki toxalat ko mais xamul fiq bi ne ci bir déggul wax ji comprendre ko ko xamantene tamit mom tam téere yi noonu rek la koy def da len di rek tak len non japp len diko ko netale a rek koku tam non la mel amul manam mom mom en réalité du borom xooxam parce que dadul man wax ji mu koy delo ci ciosanam dadul man wax ji muy xam fan la le pourquoi du comment ak tam bu jëlee wax ji ana nan la koy exploiter ak tamit tey bu événement yu bees amee ci masala boo xam dafa concerné wax ji nan la koy xàmmeewee yooyu yëpp du ko xam du xam tamit wax ji fan la jógee bu ko defee mu mën a xam dëgëraayu wax bi poids dëgëraayu poids poids dëgëraayu wax ji maanaam nan la toll bu doon mesurer dëgëraayu wax ji de telle sorte que wax jooju après su amee beneen wax bu ko gën a dëgër mu xam ne beneen gën na ko dëgër wala bokk moom moo gën a dëgër beneen wax ji wala boog bu fekkente ne même wax jii nii dëgër naga mais dafa am circonstance yoo xamante ne moo tax ñu koy mën a exploité et cetera yooyu yëpp ku dul ku ku ku ku maîtriser wul euh, xam-xam bii ñu nekk di ko jàng mooy xam-xamu xadis bi rawatina point bii nii bokk na ci point yi nga xamante ne war nañ ko maîtriser doo man loolu looloo tax xam-xam fiq bokk na ci xam-xam yi gën a jafe waxuma nag kaset maanaam nga nekkub kaset yow waxuma lool maanaam nga nekk ab dictaphone wala ab kaset nga xam te ne da ngay enregistrer rek après nga répété waat waxuma lool de li ma wax mooy nga xam nga fiq proprement dit ala ilmu bil ahkaami shar'iyyati tafsiliyati mukta naka ala ilmu bil ahkaami shar'iyyati tafsiliyati العلم بالأحكام الشرعية العملية ولا المكتسب من الأدلة التفصيلية لول موم موتاخ ماي واخ مانام بوروخوخوم فيقي ني ديفينيري فيق موي العلم موي داي نيك خام خام بالأحكام الشرعية تي أتي شريعة العملية ني ني جيفي ياي ديغ nga xam ko al muktasab nga xam ne dang koy fago dang koy déduire dang koy jëlé diko tirer minal adillati diko jëlé ci tegtal dalil ak tafsil yi teqantal ci yan aaya alquran la wax ji tegu ci yan aaya ci yan xadis la wax ji tegu ci ndax ijmaa la fa am wala bokk ban qiyaas laa utiliser pour mën a utiliser pour mën a indi wax ji ak yu mel noonu kooku moom mooy faqih ku melul noonu du faqih loolu moo tax imam alxaafis ibnu abdul bar rahimahullah daal ne ajmaatil ummati ala anna al muqallid laysa bi alim mboolem borom xam yi xeet bi yëpp Dipunin nañ ci benn wax képp koo xamantene mu muqallid nga maanaam mooy koo xamantene day tënku rek fenn maanaam day topp rek aveuglement nit maanaam wala ab téere maanaam moom daal jàpp na ni lu xalil wax rek loolu moom imam xalil rahimahullah loolu rek rek rek maanaam wax ji daal moom li gën a noot ci li mu xam ne wax ji dëgër na wala dëgërut mooy mi ngi ci téere sàngam maanaam mi ngi ci xalil wala mi ngi ci risala wala et cetera kooku du borom xam-xam ñëpp d'accord nañ ci ne kooku du borom xam-xam kooku lan la kooku ab cassette la ab dictaphone la mook dictaphone bii nii ngay déggee wax ji maanaam eh, lii ah eh, sa ordinateur bi nga koy mën a taale wala sa sa eh, kii bi nga koy déglu sa sa lecteur bi boobu ñu moo yem képp mënul lu dul répéter li nga xamante ne moom moom la contenir ndax lan su juumee doo ko xam doo ko mën a découvrir baax na euh, léegi kon lii moom mooy euh, euh, moo tax boroom xam-xam yi fonk li nga xamante ne moom mooy bunt bi bokk na ci ñi nga xamante ne nag dañoo joxoon yitte bu baax bii xeeti xam-xam moom mooy al imam euh, Aboubacar ibnu Xuza ibnu Xuzayma rahimahullah moom mi nga comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon maanaam ni al imam ibnu Xibbaan waxoon rahimahullah bi mu naan maa raaytu ala adimil ardi man yaxfazu sixaaxa الفاضل ويقوم بزيادة كل كل كل لفظة زادها في الخبر الثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره ما لم جسمه غيره الإمام ابن خزيمة من جسمه كنن كن تكاو سوفسي في كو خامنتني موكلنا xadis yu wér yi ci seen baat yi pas seen maanaa mais seen baat yi muy taxaw ci ndollentu baat bu ne boo xamante ne ci xadis bi siqa daf ko cee yokk ba moom mel ne xadis yi dañoo nekk nii ci kanamam moo leen di liir di leen xool ku mel ni moom ku moom moom daal xaw ma ku neen ku dul moom ni ki noonu am na ay yeneen borom xam rahmatullah am ñoo xam dañ cee ràññeeku woon dañ cee ràññeeku woon bu baax a baax a baax ku mel ni al abu aboubacar abdullah ibnu muhammad ibnu ziyad an naysaburi rahimahullah moom tam ku ci ràññeeku woon la maanaam moom mi ngi génn àdduna 324 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku mel ni abu nuaym al imam abu nuaym abdul malik ibnu muhammad ibnu adi borom kaamil dégg nga kooku moom mi ngi génn àdduna 323 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu ak ku mel ni al imam abul walid hassan ibnu muhammad al qurashi rahimahullah mom tamit manam ku ci ragné ku won la ah, ndax lolu yëpp day day ndax da dan day permettre manam masala yi li soko maîtriser day permettre ngay man di di génne atte yi nga xamantene ñom ñoy ñooy fiqi wa manam mom atte mom manam lu masala masala compliqué ci fiq lu ci bare bare bu fekkente ne yii da koy dang koy xam manam en tout cas lu bare bare ci masala yi dang koy daal di meuna da nga koy daal di mën xam amma manam bu fekkente nak nag yi nga xamantene comme al imam al hafiz ibn rajab wa hanbali wa rahimahullah ci sharh al tirmidhi rahimahullah manam mom euh daf doon wax ne euh daf doon wax ne maanaam sunan bu imam abu daud rahimahullah manam téere la bo xamantene euh ci lu aju ci dollentuk yax waa wala bokk ay ndollentuk baat ci xadis yi moom moom ra imam Abu Dawud rahimahullah ci sunanam bi maanaam daf ko cee baril def jox ko yitte ba nga xamante ne képp koo xamante ne euh, euh, euh, maanaam boroom xam-xam maanaam loolu ñooñu la wax muhaddisul fuqaha maanaam mooy al fuqaha ul muhaddisuna fuqaha al muhaddisuna yi mooy ñi nga xam te ne dañuy nekk borom xam xadis nekk borom xam fiqh en même ñooñu dañ koy yittelu dañ koy yittewu lool lool lool lool lool d'ailleurs ñooñoo gën a aay ci fuqaha yi fuqaha yi ki ci gën a ay mooy ki ci gën a mën xadis ki ci gën a aay mooy ki ci gën a mën xadis gën cee maîtriser usul boo ci boolee gën leen gën cee xam tafsir moom yow kooku kàngam ngay doon maanaam yow daanaka da ngay nekk doj boo xam ne maanaam subhaanallah daanaka deefut a gis ku mel yow ci say jamono wala ci ci boo bëggee kenn du gis ku mel ni yow ci sa jamono <laughs> maîtriser ma yi maîtriser xadis alquran tafsir maîtriser xadis maîtriser usul maîtriser fiqh bon fiqh da nga koy mën a maîtriser wala en même temps ak aqida maîtriser siira yii juróom benn lañ ci ay euh, xam-xam ak tasawuf bien sûr muy juróom-ñaaral moo leen juróom parce que tasawuf en fait yii yëpp dañuy en fait tasawuf dafa dajale yi yëpp moo tax mais niki ki noonu alquran ak xadis mooy ndeyi gis nga yi soo maîtriser doo maanaam sa jamono daanaka kenn du gis ku mel ne yow kenn du gis ku mel ne yow waaw yàlla nañ ko yàlla <laughs> nañ ko yàlla defal <laughs> waaw kon loolu daal moo nekkoon kon li nga xamante ne maanaam moom lañ doon euh, mëmbëstale li nga xamante ne moom mooy euh, bunt bi incha allah taala ci jotaay bii di ñëw nag dañuy gis maanaam li nga xamante ne moom mooy kon euh, développement li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci masala yi ci biir wala ndax introduction bi dugalaale nañ ko ci wallaahi alhamdulillah kon léegi mu des rek masala yi borom xam rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom lañ wax ci euh, biir incha allah wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين